bismillah mbokki jullit mu mel ni weeru koor mu ngi ñëw wax naa ci sama darsa bi ci suba ma ne weeru koor bokk na ci e, sifa bokk na ci saafara yi nga xam ni mën na faj bépp jàngoro waaye bu yonent bi ne suumoo tasiyon woor leen ngeen woor wér itam feebaru yaram rek taxul waaye weeru koor hôpital la boo xam ne ci la yàlla di soigner bakkan ci lay faje jàngoro yu bëree bëri am na jàngoro boo xamante ni moom la ñuy tuddee nay nit ki weeru koor dina dindi jàngoro boobu ci moom ndax ki yendoo xiif ba ngoon jot mu xam lan mooy xiif soo liggéey bu gisatee ku xiif bu yóbbu bu ko mënee dimbali dana ko jox kon dina dindi nay ci moom dina dindi li ñu tuddee jëw ci nit moom weeru koor dina tudd dindi li ñu tuddee fen ci nit dina dindi li ñu tuddee rambaaj dina dindi lu ñu tuddee ñaaw njort dina dindi li ñu tuddee eh, wax lu sa yoon nekkul te yooyu yëpp ay feebar la ci nit ki yoo xam ni su ci nit ki nit ki jooju du mën a egg ci boroomam moom la alquran di wax kalla barraana ala qulubihim ma kaanu yaksibuun nee na am na loo xam ne moo tëj diggante nit ñi ak sunu borom subhanahu wa taala moo tax mu ne kalla innahum an rabbihim yawma sin la mahjubuun moo tax ba ñu waree yegg ci yàlla dañuy dox seen diggante ak seen borom ko gis su ko defee kon weeru koor dafa ñëw pour raxas ñu ba ñu set wécc yonent bi dañ ko laaj ndax xam na ko perte ci àdduna mu ni waaw ñu ne ko kan moo perte mu ni ko dugg weeru koor ba génn ko te yàlla jéggalu ko ay bakkaaram kon weer weer a ngi nii woo xam ne weeru raxasu la weeru jéggulu la weer wuy saafara jàngoro la te bu nu ko gëmee mu nekk dëgg ci ñun feebar bi liñ koy ragal ragal ba weeru koor duggee dana fi jóg ànd ak moom dem yoonam parce que weeru koor pour saafara jàngoro ko tax a jóg ko defee kon ñu ngi leen di dénk koor gi ñu fonk ko maa ngi ciy dégg ay rumeur ñu naan am na yenn yenn borom xam-xam def ay fatawa ni comme feebar bi dafa am mën ne dëkk dëkk bu mu sonal mën nañ bañ a woor loolu amul ci lislaam yàlla moom daf la wax boo mënee woor wooral su fekkee da feebar ba xam ne mën a woor kooku sa médecin xam na ko su boobaa feebaral la tax woor tee woor te da nga koy fay waaye képp ku ci dog te feebaruloo da ngay da kaafara te kaafara ñaari weer ngay fay ngeen baal ñu ak wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu jërë ngeen jëf